ci Baye Fall ga la am di Fall moom Serigne Modou Mbenn mi nga xam ne mooy xalif général des Baye Fall woolu mbooleem njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall gi ci njiital jëwrinam di Serigne Cheikh Fall moom Serigne Modou Moustapha Fall ñu gën koo xam ci Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng ngir ñu dem jébbalal ko Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalif général des Mourides addiya ji nga xam ne njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall moom lañ dajale ngir jébbal ko ki fi nekkal Serigne Touba. addiya daa war ñu di ko jox sëñ Tuubaa ak lu mu xat-xat nee na dafa war moom am xelam li mu jàpp mooy fu nu toll rek war na ñuy jël sunu ñàkk di ko yót sëñ Tuubaa donte danoo nekk si liggéey yoo xam ne nii si ndigalul sëriñ bi la waaye lii de yoon wi daa baaxoo lii te am xelam du dal mukk lu dul ni mu jël addiya jii jot ko seen ki nga xam ne mooy sëñ Tuubaa di Cheikh Amadou Mountakha nee nag mi ngi koy teg sa loxo yaa njaboot sa njabootu bopp gi ngeen àndandoo yóbbu ko yóbbul ko ko si sëñ Tuubaa Cheikh Amadou Mountakha waaw sàkku nag eh, lii nu lii nu dëgg ma lépp nag nu am si ndam ginnaaw bu leen sëriñ bi ñaanale ci la kilifa yépp ànd ak sëriñ Cheikh njaay Mbengue ñu bàyyeekoo fi nga xam ne moom moo di fii ci Baye Fall ga ñoom ñëpp ñu def benn convoi jubali ca daarul tanzil bi nga xam ne fa ba nekk ngir fas yéene koo jébbal addiya ji nga xam ne moo bàyyeekoo ci xalif général des Baye Fall am di Fall moom Serigne Modou Mbenda. bi ñu agsee fii ci daarul tanzil dalal nañ mbooleem kilifa yi ñu àndaloon ci mbaar mi nga xam ne moo nekk ci kër gi sëriñ bi bu mu génnee présenté nañ ko mbooleem njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall gi nga xam ne ñoo ñëwoon doon ko jébbal si addiya ji ci njiital sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng mi nga xam ne mooy jëriñu sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou mbenn mi nga xam ne mooy xalifa général des Baye Fall. jébbal nañ sëriñ bi addiya joo xam ne xayma nañ ko ci juróom fukki million ci sunuy koppar. ak téeméer ak juróom ñetti kaamil ak téeméer ak benn saakoy dugub ak ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak benn butéelu parfum lépp nag di adde joo xam ne mi ngi bàyyeekoo ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall jëm ci kër Cheikhul Khadim sëñ Assane Fall mu Cheikh Moustapha waaw sëñ Abay Sarr sëñ Cheikh waaw borom jaxas bi ni leetar baa ngi noonu waaw ah, sëñ Assane moo dolliwaat loolu Baye Mbaye waaw soxna Roqe ndax sëñ Fall sëñ Mourante rak rak sëñ Taala la mooy jëwriñ ji nekk Thiès waaw mu maam Saliou waaw sëñ Cheikh Ngounda Fall Fall sëñ Fallou sëñ Mbacke Fall mu tuddi sëñ Mourante mu ne sëñ Fallou Mbar waaw moom mi waaw kooku sëñ Cheikh moom ak ci waa kër sëñ Amdi sëñ Cheikh Fall sëñ Cheikh Fall waaw sëñ Falilou Fall sëñ moom moom Cheikh Mamadou Falilou Fall loolu nga waxoon ca waaw sëñ Daam sëñ Daam Fall doomi sëñ Amdi rakk sëñ Cheikh Fall mii la waaw moom la daam jaxat sëñ Assane rakk sëñ Fall yi loolu waaw sëñ Assane Fall Fall Ndiégu Fall Fall Fall sëñ Abdou Mbow sëñ ginnaaw bu ñu présenté lenn ci njaboot gi sëriñ bi sëriñ Saliou Fall moom sëriñ Modou Moustapha Fall ñu gën koo xam ci sëriñ Saliou Fat Sow yëkkati na fa ay kàddu ci tur sëriñ bi ñu ànd teewlu ko kàddu yu bàyyi ko ci sëriñ Cheikh Fall mi toog sëriñ muy sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng mii mi nee jiite tey mbooloo mii bàyyi ko nag ca sëriñam ba di sa ndongalee muy sa ndongalee nekk janatul maxwa. nekk fee ca janatul maxwa. da ko woolu woon ci fan yii. nee na da ko wool woon ci fan yii. ni ko damaa bëgg nga ñëw. ni ko damaa bëgg nga ñëw. ànd ak fere yi. àndal maak fere yi. dem yóbbul ma liggéey bi ci sëriñ bi. dem yóbbul ma liggéey bi ci sëriñ bi. booba ak léegi nag am na ay fan. nee booba ak léegi nag am na ay fan. ndax bëgguma. ndax bëgguma. liggéey bi fekk fi liggéey bi liggéey bi fekk fi liggéey bii. te liggéey bi jub na. te liggéey bee nag jub si na. muy liggéeyum ndogu yi. muy liggéeyum ndogu yi. loolee nag. nee loolee nag. moo waral lii tey. moo waral lii tey. moom mii nag. nee moom mii nag. keroog ba sëriñ am di toogee xalifa. keroog ba sëriñ am di faal toogee xalifa. nekkal fi Cheikh Ibra. nekkal fi Cheikh Ibra. la daal di dem joxe boppam. la daal di dem jox ko boppam. nu ñii mu bokkal Serigne Modou Moustapha it. nee ñoom ñii mu bokkal Serigne Modou Moustapha. nu ñëw jox ko suñu bopp. ñoom ñëpp ñu àndandoo ñëw jox ko seen bopp. ak kër yëpp yi kër sëñ Modou Moustapha yëpp. ak kër sëñ Modou Moustapha Fall yëpp. ñi mu meññ ñëpp. ñi meññ ñëpp. su ko defee. nee su ko defee. ñii ci des. nee ñi ci des. ñooy kër yi nga xam ni. ñooy kër yi nga xam ni. dañoo seq ak sëñ Modou Moustapha Cheikh Ibra. dañoo seq ak sëñ Modou Moustapha Cheikh Ibra. benn ci sëñ Taala bi. nee benn sëñ moo Taala Fall a ngi nii toog. kër sëñ Mbacke Fall. sëriñ Mbacke Fall sëriñ Cheikh Cokke. waa kër sëñ maam Saliou Fall. waa kër maam Saliou Fall sëriñ Cheikh Ngunda Fall a ngi nii toog. ak ñëpp rek. ak ñëpp rek ñi mu àndal. ak njabootu sëñ Modou Aminta. ak njabootu sëñ Modou Aminta Fall gi. ak ñeneen ñi nga xam ne sëñ Modou Moustapha moo jur seen waajur. ak ñeneen ñi nga xam ne sëñ Modou Moustapha moo jur seen waajur. muy kii taxawoon léegi di wax. muy ki fi taxawoon léegi di wax muy sëñ ak ñeneen ñi demee ni moom. sëriñ Moustapha a ngi ne mu sëriñ naa ak ñeneen ñi demee ni ñoom. wax bi damay bañ mu gudd. nee wax ji kat day bañ mu gudd. te toogaay bi day métti ci sëriñ bi. te toogaay bi day métti ci sëriñ bi. li ci am solo daal. nee li ci am solo daal mbàkke. addiya ji. addiye ji. moom la sëriñ bi doon joxe si. moom la la sëriñ bi doon jox si. moom la ñu la jox noonu ci. nee moom la la jox noonu ci bataaxal bi nga doon jàng. waaw loolu. nee loolu. mooy li nu tax a jóg. mooy li nu tax a jóg tey jii. xanaa leneen li ci des. nee xanaa leneen li ci des. mooy nga ñaanal ko nag. mooy Faal Mbàkke nga ñaanal ko. ba mu jekku sa ndigal. ba mu jekku sa ndigal. moog njabootu Cheikh Ibra gii mu àndal. moog njabootu Cheikh Ibra Faal gii mu àndal. amuñu jenn yitte ci àdduna. ndax kat amuñu jenn yitte ci àdduna. lu dul sa sa bëgg rek. lu dul Mbàkke sa rek jëfal rek. bëgg la Mbàkke jekku ndigal ba di ko jëfal rek. boo gisee mu def lii. nee boo gisee nag lii sëriñ Amdi Fall xalaat def ko. liggéeyam ndog yi dafa jub si. liggéey bii ci sunu kanam muy ndogu yi dafa jub si. te danoo bëgg. te da kat daa bëgg. nu mu daan mel rek. nee nu mu daan mel rek. mu romb ko. nga ñaanal ko mbàkke sëñ am di romb loola. loolu daal. nee loolu daal. mooy li nu taxoon a jóg jii. nee moo taxoon a jóg sëriñ am di mu yebal rakkam yi ñëw. te nga ñaanalal na nuyu sunu jëwriñ ji. ñoom nag ñoo dellu di ñaanal kii sëriñ am di Fall jiital. muy sëriñ Cheikh Fall. sëriñ Cheikh Ndiaye bi. muy sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng mi. yaay sama jëwriñ. ndax kat yaay sama jëwriñ. dafa diis. nee dafa diis. kon mat jëwriñ rek. kon mat jëwriñ rek. moo koy mën a doon. moo koy mën a doon. ba tax na. ba tax na. nga ñaanalal ñu ko. nee nga ñaanalal ñu ko. moom it fi bëgg a lii mu moo nee moom it fi mu bëgg a yóbbu lii mu yor mu yen bi. yen bi ko sëriñ bi yen. moom tooy. nee mu woyof fi moom tooy. mooy li nga xam ni. nee loolu mooy li nga xam ni. kaddu yi nga yi ma ni. kaddu yi ko sëriñ bi waxoon ni. bu egsee naa ko ci dolli. bu egsee dina ko ci dolli. loolu rek la mbàkkee. nee loolu rek la day mbàkkee. ñu nag. nee murit nag ñoo àndandoo waat ñoom it di la ñaanal. ca nam ko daan waxee rek. ca nam ko daan waxee. njabootu Cheikh Ibra gépp. njabootu Cheikh Ibra faal gépp. nee Serigne Saliou Fall nee na mi ngi sàkku ci ñom ñaanal Serigne Mountakha mii fu way nek tay ji nga wax ci saw làmmañ Serigne muntaha Mbàkke mi ci barkeb Cheikh Ibra ci barkeb Cheikh Ibra Fall yal na fi yàgg yal na sa borom gëna yagal te yal na wér te yal na wér na ko wax nee na ko wax Serigne Saliou ngi sàkk lolu ne lolu dal ne bëgg na mourid yi jappalé ko ci ne na ci ñepp japp xam lu taxaway Mbàkke mourid yi xam nañ sab taxawaay ci yoon wi waxuma yoon wi rek waaye lislaam nee waxul yoon wi sax waye l'islam jëpp ku ci bok ku ci bok te xam la te xam la la gis na saw doxine rawatina nak rawatina nak yoonu murit wi yoonu murit wi ndax gis nanu ndax gis nanu sak top sak top ci ñi fi daan jitu ci ñi fi jitu won ba nga aksi fi tay gis nan sak top gis nan sak top saw doxin gis saw kaddu kaddu ak jëf gis sa jëfit kon dara umpuñu ci kon mbàkke dara umpuñu ci moo tax nag ñuy ñaan ca bëgg nga yag fi nga yag fi ta nga and ku wér nag jërëjëf mbàkke jërëjëf mbàkke dugub jaa ngi cooto bi moo bàyyi ko woon ca daara yi lépp bëgg sëñ am di nee daa bëgg lu mu yor ci mur yi jox ko ko rek mu gaaw mu raw liggéey ba nga ko jox ca Mbàkke gis nga ko waaye ndeke jekk mu soññ sëñ Cheikh Ndiaye Mbeng ni ko la sëñ Cheikh jëmb daan def sëñ Modou mi daan ko def ak sunu waajur ya su ma sañoon loolu rek laay def keroog ba mu toogee lim njëkk a wax ñaanal li ma jox sëñ Mountakha milliard kon fit wa rëy na jom ji rëy na bëgg ga rëy na kattan gi rek a ci des ko am nag Rakam yi buñ ko amé sëñ am di limu Wa bëgg dina am waye sëñ am di limu bëgg su ko amee mbàkke loo bëgg dina ko def lepp sëriñ touba Cheikh Rafal la ko war yor Cheikh Rafal yaay sëñ touba ginnaw kaddu yi nga xamné mo bayé ko ci njabotuk maam Cheikh ibrahim Fall gi amna kaddu yo xamné xam ne Mbacké mom sëriñ basir mi nga xamné moy khalife général des Mourides yëkëti nako santat bu baax baax njabotuk maam Cheikh ibrahim Fall gi feddaliwaat ak laxasayam Andak Nyom, ànd ak ñoom liggéeyub Touba bi waaw nee na nee na nee na loolu doy na sëkk nee loolu rek moo fi nekk nee loolu yëbbaale na lépp nag sëñ Saliou nee na dégg na sa kàddu nee na fa tabaarakallaa nee na mat na sëkk rafet na lool nee nag ñu ngi ci amati mbégte nee mu rëy rëy rëy nag ne kaddu gu njëkk googee rek googee mu waxoon ne tey jii la ko gën a wax bàyyi fal bu dëggal kenn xamul lu mu doon. kon nee na alhamdulilah la aalamiina mu gën a santaal rek nee ci jataay bii mu jataayoo yéen nee na jataay bi gis na ko de. nee na sori na ci moom lool. nee na jataay bi soññati na ko. nee du ci dolli dara lu dul di nu seereel nu nu. nee mi ngi ñuy seereel ni. moom Cheikh Mouhamadou taxaa ñun Baye Fall mi ngi ñuy seereel ni mi ngi gën a jaay yeesal ak jaayanteem diggante nag Cheikhul Khadim. nee di gën a feddali ak laxasaayam. fas yéene ko ànd ak mboolem taalibe yëpp. fas yéene ko ànd ak mboolem taalibe yëpp. waaye nag. yéen ñi toog yéen nekk ci kanamam. nee mu fas yéene ko ànd ak yéen. incha allah nee jërëjëf. nee jërëjëf. nee cant rek la mën a wax. wëri si waa ngoog nii la ko sëñ Cheikh jëmb daan defee. li moy adde ji nga xamne mom la njabotuk mam Cheikh Ibrahima Fall ci njital khalifa bi di sëriñ Amdi Fall mom serigne Modou Mbenn mi nga xamne mo fi nekkal mam Cheikh Ibrahima Fall don jébbal tay ji ci talata ji dëppook fukki fan ak juroom ci mars atum 2022 khalifa General des mourid Cheikh Mouhamadul muntaha mbake mom serigne basirou diko ñaanalat mu gën fe yag lol te gëna wër waye diko ñaanal khalifa general des Baye Fall sëriñ Amdi Fall mom serigne Modou Mbenda mu yag indi adde ji yag fe fek serigne bi ñoom ñëpp ñu ànd liggéeyal Cheikhul Khadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu